gaa yeew ñu quatre heures du mu ne kaay leen génn leen ñu génn. wala sax boo koy génnee fenn da ngay naxante ak moom mais pa nga fekk ko jékki rek. guddi 4 heures du la ñu fekk fii. nii la xew-xew bi daal di amee gannaaw bi nga xamante ni autorités yi ñëw nañ ànd ak seen i force de l'ordre ñi daal di leen di jëlee ñoom ñi lee dëkkee ci boobu la cité di cité imbécile nekk ci dëkk Ndakaaru tey jii ñu ngi toog ak jaxle xamatuñ naka la ñu war a mën a def jaxle nañ loolu tiit nañ loolu jaxasoo nañ loolu dem nañ ba xam ne sax ne lii. nekk na lu leen bett loolu yow nit duñ la jox avertir sa alal nga liggéey ko lu mat 5 ans wala 10 ans ah ñu jox la avertir nga toog ñun yëguñu ci dara. wala ñu ne leen ku fi kuy julli ji jël say bagage kon du demee nii yaay dégg mais carrément dem noo bett te itam wax dëgg sa la lii métti na métti na trop métti na trop. gannaaw si loolu si situation yi toll ñoom ñi le ñi ngi yuuxu wallu tey sàkku ndimbal si autorité yi ñi taxawu leen. ñu sàkku ku ñu dimbali ndax fii la fanaan depuis depuis ba tey si biti la ñuy fanaan ah. ba léegi nii si si biti ngay fanaan amoo loolaal ci suuf si ngay fanaan. depuis barki démb ba léegi nit ñi si ba day la ñuy fanaan. lu toll si diiru ñaari fan. gannaaw ba nga xamante ni jëlee nañ leen ci seeni dëkkuwaay boobu noonu di site imbécile